mangi nuyu ñep di ziar ñep di remercier tous mes compagnons de la Medina yi nga xamni accompagner nañ ma fi tay ci bir église Saint-Joseph kuma xam xamni sa saa su ne saa yu mu ko damay ñëw andax suñu frères chrétiens yi muy nakar muy banex tay c'est un grand jour saint nga xamni dañuy fatiliku ñi nga xamni ne nañ ñu ñu leen ñaanal ñom ñep di ñaan yàlla mu may ñu wér may ñu kantan ñu yàgg fii di leen ñaanal donc ñun yàgg nañu lépp lu mën ñu jàppale leen si ñoom aussi ñu ñuy jàppale tey nag am nañu mbégte ñëw taxaw ak père Yves mi nga man sama xaritu bopp la man ak moom dañuy waxtaan waxtaan yu xóot mu nekk ku baax donc dañu ñëw tey parce que keroog bi mu fi ñëw si biir église bi dafa am mu metti ma gis église bi bu fi am

ñëwoon tay ak sama mbokk wa Mbirna suñu jigeen ñu bax gi suñu goor ñu bax ñi xalé yi ñom ñëpp andax man ñëw magnifier euh, ce geste euh, ñu def ko ak ak joie di ñaan yalla lepp luñ fi ñaan mu dal ci kaw senegal daw ci kaw medina daw ci kaw dakar deug le mané kon curé mais légui nekkatuma ah hein? c'est c'est lui le le curé hmm? peut-être dina ko bayil tamit mu wax kaddu. monsieur Cheikh Ba kenn du wax gulet kenn du wax goulette donc je crois que maa ngi door a yegg si fii waaye dégg naa sa jaar-jaar ak ni ngay jëflante ak waa Saint-Joseph di gën di la gërëm rek te di la ñaanal yàlla foog naa ne lii ñëw maye ventilo ndax nit ñi bu ñu toogee di ñaan yàlla ñu mën a nekk à l'aise je pense que amul geste bu ko gën a noble yàlla na la yàlla fay sa xol yal na lépp li nga bëgg nga namm ko te nga bëgg koo def yal na la yàlla may doole xel ak sago ba nga mën koo mëttali ni mu ware ñun amuñu dara luñ lay fay ñu ngi lay bàyyi ak yàlla yàlla mi mën fay te ku mu fay nga doyal sëkk yal na la yàlla may yal na la yàlla fay di gërëm itam ñi lay gunge yéen itam yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla taxaw di gërëm communauté chrétienne bi ñoom itam je pense que li ñuy dund ak yow moom ngay wone nii ndaxte bu doon ne seen diggante rataxuloon kon lii peut-être duñu ko duñ ko amee niñ koy faral di amee waaye foog naa ne li ngeen di dund mu yàgg moom nga ñuy won te ñu ne lu yàgg rek loolu dëgg la yal na ko yàlla gën saxal yal na ko yàlla gën saxal di gërëm itam René wala René ci ñun la bokk waye René ya ko mom sa collaborateur la yal na yàlla gën a seen xol yi yeen ñaar ngeen gëna and li ngeen nam ci askan bi yal na leen yàlla may vraiment ngeen mën ko mottali en tout cas je n'ai pas les mots pour vous traduire vraiment le sentiment qui m'habite mais je suis satisfait, je suis très content et je confie tous vos projets à Dieu. Que le Seigneur continue toujours à vous bénir. Et vous avez, à travers ma voix, les remerciements de toute la communauté chrétienne de Saint-Joseph pour ce geste noble qui va nous aider à vraiment pouvoir bien prier, à prier à l'aise. Et dans la prière, nous ne prions pas simplement pour nous, parce que la prière, la vraie prière, c'est une prière qui s'ouvre au monde. Donc quand nous sommes là, nous ne prions pas simplement pour nous, mais nous étendons notre prière au monde entier et soyez rassurés de nos prières. Un grand merci.